fànn yi nga xam ne dafa daal di ubbi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai ci atum 2024 opportunité la ci loo xam ne kat taarix dina ko daal di bind ci ñu daal di mën a xeltu ay coppite yi nga xam ne wala ay yeesalaat ci li nga xam ne mooy wàllum justice bu Sénégal daanaka juróom benn fukki at ak ñeent ginnaaw ba du moomee suñu bopp fii ci Sénégal pouvoir bi ak ci wàllum yoon gis nañ ne dañoo nekk rek état de droit ci wàllum démocratie waaye naka la ñu mën a fexe ba dëgëral loolee maanaam consolidation ci li nga xam ne kat mooy rek lu ñu moomee suñu bopp waaye tamit gën koo jëmmaal xool li nga xam ne moo ci ñuul ñu mën koo daal di beddi ak li nga xam ne daal dafa ëpp tuuru am na loo xam ne tamit ci wàllum administration ak fexe ba yeesal wàllum yoon yoon googee nag tax na ñu bëree bëri am ci ñëgg-ñëggi xol kon bu fekkee ne yoon nag moom ki nga xam ne kat mooy njiitu réew mi moom da ko daal di bokk wala téye ko ci ay fukk yoxoom moom ci boppam lañu saytu ne moom mooy chef des armées moom moo yor wàllum aada cosaan lépp daal ci moom la daal di yaa ñu bëree bëri gis kañ moom mooy buur mooy bummi pouvoir yam yor yaatu loolu mën nañ ko cee gis maanaam ci wàllum yoon loo xam ne lenn mënu koo tax mu gën cee dëgër kon bu fekkee ne wàllum séparation pouvoir yi ci wàllum exécutif législatif ak judiciaire li nga xam ne daal moom lañ ci gis ne kat mooy wàllum yoon moom waruñ ko gën a yeesalaat ak wàllum administration ndax gis ne naam moom mooy njiitu réew mi waaye système bii nga xam ne teg nañ ko ci wàllum présidentiel dafa mel ni kat reen ci boppam moo justice administration publique ca la bokk tasar xibaar ca la ñu bokk ay acteurs politiques ak xam ñoo bokk société ñu bokk ay banqaasa yoo xam ne daal ku nekk am nga sa wàll ci nar wi kon justice bi nga xam ne moom moom boppam ak li nga xam ne ay pouvoir te mu bañ rek ñu daal di koy influencer lii jóge ci askan wi lii jóge ci kilifa diine yi ak ci kilifa aada yi waaye tey jii nag moom yoon la ñu mën koo gën a càmbar kon dafa mel ni autorité judiciaire boo xam ne indépendante la loolee daal fexe ba li ñu wax kat séparation des pouvoirs mu nekk dëgg ci Sénégal loolee la ñuy xaar rawatina kat toogaanu bii kon tam dafa daal di gis ne autorité judiciaire indépendante boo xam ne compétence lépp loo xam ne kat moom la daal di ñeel loole lañ ciy xaar waaye tamit dakkal gu nu mën a dakkal fexe ba lii nga xam ne mooy lëkkaloo kat tax ci wàllum justice jaarale ko ci wàllum exécutif ku mu neex teg ku mu neex teggi loolee dafa war a jeex itam kon bu fekkee ne gëm nañu ne lii mën a nekk kon foog ñu waxante dëgg waaye itam li wétte woon mooy ci nii mbaa ci ne gouvernance nag moom ci askan wi loolee mooy fexe ba askan wi ci boppam mu moom boppam waaye tamit fexe rek ne mooy mooy buur mooy bumi